internautes de Sene Info International ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal si euh, euh, seen flash d'info euh, du vendredi 24 novembre 2023. dañ koy commencé par par li nga xamante ne moom mooy opposition bi opposition ñu ngi leen di dingat ah dañu di dingat parce que nee nañu opposition bi dañoo ne tekk tekkaaral par rapport ak li nga xamante ne moom mooy fi xew par exemple changement à la Sénat les rapports yi nga xamante ne def nañ ko. Euh, les violations de règlement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale loolu yëpp nekk ay points yoo xamante ne vraiment ñu ngi soxal askan bi euh, ay violations yoo xamante ne ñu ngi koy def euh, ci entité yooyu mais opposition bi mu ngi ne tekk tekkaaral donc loolu moo xëy gën a fes ci xibaar yi donc ñu jàll si li nga xamante ne tamit mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko aussi ñu ngi xamal ci xibaar yi lu gën a fes nee nañ mu ngi dérouté se ci ci ses adversaires ah Ousmane mu ngi dérouter ses adversaires parce que mu ngi euh, mettre en plan boo xamante ne vraiment pour euh, vraiment xam fu muy taxawee si élection présidentielle yi. ñu des toujours si actualité bi euh, ñu ngi wax fësal benn inauguration boo xamante ne président Macky Sall def na ko fële see Diamniadio benn bâtiment de 34 agence boo xamante ne waa. Euh, Nations Unies ñoo ko moom euh, pour mun a faciliter seen liggéey donc Macky Sall si lu mu xamle nee na loolu dafay nekk cadre idéal boo xamante ne dina permettre euh, agence yooyu ñu gën a mun a wéyal seen liggéey convenablement ñu des rek si xibaar yi ki nga xamante ne moom mooy Boun Abdallah Dionne daanaka dafa am ay trahison ñi nga xamante ne ñoom ñu nekk ay jegeñaale am ñu nekk ay délégués régionaux ay directeurs ah, régionaux ñoo xamante ne du ñoo rallié woon Euh, si si moom léegi dañoo dem si euh, Amadou Ba Amadou Ba convaincre na leen ba ñu dem si moom mu nekk loo xamante ne vraiment opposant bi mu ngi koy ñaawlu bu baax a baax boobu boobu kan moom candidat à la bi mu ngi ne loolu vraiment du lu jaadu donc mu ngi ñaawlu bu baax a baax li nga xamante jëf jooju nga xamante ne jàppale ne Amadou Ba mu ngi koy def tout vraiment jël ay jege ñaale yam nga xamante ne aussi moom may Mame Boye Diaw euh, ay partisans aussi ñoo si bokk parce que ay militants am ko jege gën a jege dem nañ aussi jege ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba donc euh, lii lañ leen indiloon si lu gën a fes si xibaar yi euh, si seen flash d' information euh, si vendredi 24 novembre 2023